Ah. Ah, te daanaka doo xam foo féete. doo ne si jàmm mukk ma avancé. ah ndax da ngay gëstu. baax na. baax na. Ah, yow technicien. baax na. yaa koy am. alhamdulilah waaw de mm-hmm. léegi nag. Mm-hmm. man dama ci am benn gis-gis ba gàtt. Mm-hmm. xam nga doon. sunu baay bi commissaire Keita. gis fi réew mi toll ni jàpp naa ni soxlawul jàpp tëj barke salaatu fàtte soxlawu ko xam lu mu soxla mm. yóbbu ko dalal ko waxtaan ak moom benn âge bi benn beneen bi nit day ju daa ju juum na ci position ci choix ci lépp et njuumte bi yàgg na parce que dafa benn régime bu fi nekkoon Uh-huh. sonal sénégalais yi. bu baax moment bi mi sonal sénégalais yi moom suñu baay bi mu ànd ak loolu. loolu lu lu ma yéem la man. lu extraordinaire la. Ah. lu ma jaaxal la ci moom position bi mu amoon sax ci jëmmi jamono. au départ c'était pas ça. après on n'a pas compris. après aussi c'est allé crescendo dans le sens où on a eu l'impression que dafa am problème ak Ousmane Sonko personnellement. c'est une impression. à un moment donné on sent quelque chose d'assez haineux. qui mm-hmm. fait que il digère pas. Mm-hmm. Mhm. te loolu problème la. n'empêche su ñu demee nag ba génn foofu ba nekk ci beneen gaam Sénégal ubbeeku ci beneen fànn ñu gis ne euh, am na euh, comment on appelle ça euh, am na lu mel ni jiixi jaaxa wala xel ñaar. Mm. ci benn context boo xam ni régime bu bees bi installé wu na mu ngi door a toog coow li commencé jëpp. Mhm. ban coow. Mhm. ñi daanu xam nga léeg-léeg nga nga gagné nit ci compétition mu mu civilisé. waaw mu nangu ko mu correct. Ah, mu mu doon ndaanaan quoi. Mm-hmm. sauf que ndaanaan benn yoon nga kaa doon doo ko doon ñaari yoon doo ko doon ñetti yoon. da nga kaa mm-hmm. doon wala doo ko doon. Mm-hmm. Mama na raison de plus qu'avec leur âge qu'ils aient raison gardée d'autant plus que c'était c'est un homme de loi. ah qu'il sache raison garder oui. mais xam nga léeg-léeg hmm. mën na jumloo nit. ah bu baax waaw booy demee xol moom. dënn. dëgg la. dënn nag des ka yaatal. Hmm. du dëgg. Hmm. bu xatee rek du sotti. moo tax yàlla ñu yàlla may dënn yu yaatu. waaw Babacar Ba on va dinañ ci waxtaan léegi ci accident yi. alors moi moi je dis je dis une chose soxna si. soo bëggee dégg-dëgg. Euh, sunu baay bi commissaire Keita. man suma ma doon nguur gi du ko yóbbu ci yoon pour tëj ko. foo koy yóbbu fa. dama koy euh, ci sama gis-gis bu gàtt. da koy yóbbu hôtel. ci vas l'emmener à l'hôtel. non pas à l'hôtel. ah xam nga sanction bi gën a garaaw ci àdduna pour kilifa. Hmm. mag hmm. mooy nga wax dara. ñu wala ne la kaay leeral nga ne ma ko leeral wala nga ne noonu damaa dégg ci nit ñi nga ne ci en fait ci ni ma ko dégg. lolu gàcce la. non man japp na ni ling ci wax mo ci nek parce que da fay demé xol. oui légui nak lolu lolu japp na ni pour kilifa pour mag nu nga mm. nuy ba ba sunu suñu pour mag loolu doy na sanction ben parce que la population a compris que li nga don wax amul ben wala bok bu amé mënoo ko wane te yaakaaruñ ñu am na. mais est-ce que ça suffit. waaw ah non loolu rek doy non xama lolu c'est un. waaw parce que lu ni mel légui nak man japp na ni boo fekkee dañ la pousser jusqu'au jusqu'à bout et au bout nga leeral war ngaa mën a leeral. Hmm. boo demee ba ci kanamu juge bi ne ko sëñ bi li ma wax dara du ko dindi parce que nii ak nii la demee nii la tëddee ñu ne la kon wane ka. Hmm. nga ne non mënu ma ko wane parce que da ngay beneen bi moo di ne soxna si hmm. contexte bi réew mi toll am na ñeneen ñeneen yeeyoo loolu xam nga ñamu doon. ñi ñuy wax reddition de compte ñu war a leeral foofu ñooñu nag ñoo mat a lijjanti commissaire kayta mag la jarul jàpp di tëj ba pare dëkk bi jamono bi contexte bi du loolu contexte bi perspective la avancement building nit ñi bien ñu si cause bi wàññeeku dëkk bi neex il y a des choses qui nous attendent en bien ci kàttanu suñu borom il faut juste rek léeg-léeg bu ñu waxee nag gars yi dañ naan non du yéen yéen a war a wax autorité yi li ñuy def Macky Sall ba mu fi nekkee dañ daan wax kon bu fi keneen nekkee dañuy wax na fekk nag li ñuy wax ñu xam ka waaw benn na mhm. fekk itam li ñuy wax ñu teg ko ci honnêteté. surtout ci honnêteté. ci capital. man moom nga baal ma mais dafa am loo xam ne dama ko remarqué. waaw yéen laay wax ndax euh, yéen yéen a yor kàddu bi yéen yéen ay euh, chroniqueurs yi noonu laa ko mën a waxee. yaay waddalaat sama. waaw waaw wa waaw téye ko noonu. comme ça nga yem benn place réglé yamal dégg yéen ñi ngeen xam ne a yor kàddu léeg-léeg sur dafa pour man da dangeen war a am taxawaayu leeral leeralal ñenn ñi. di mhm. xew ci dëkk bi. Mhm. parce que ñëpp jànguñu. Mhm. ñëpp jànguñu ah. te vous avez l'habitude de tenir ay ay propos yoo xam ni waaw.

mais sénégalais le sénégalais yi sénégalais deux mille vingt quatre ñu ci bari ñoo comprendre ñoo ñu xam nous sax ñu ko niveau d'information bi léegi daanaka dañ ko xaw wax sax dañ ko journaliste bi ñëw toog yow di wax fa muy di wax jot information bu raw sax xel baax ma la wax. Hmm. fi ñuy expliquer que. détaillé. Mm-hmm. non am na koo xam ne mu ngi toog këram yor information bu mu yor boo xam ne ñun yoruñu ko te fekk ñu ngi wax ci loolu moom mu xam te lu raw ñun lañ ci xam est-ce que nga. aujourd'hui dañu toll ci benn dëkk boo xam ni dafa laaj apaisement dafa laaj plus d'honnêteté dafa laaj ay dënn yu ubbeeku. Mm-hmm. xamalu tee réew mi mm-hmm. xol yu bon <laughs> réew boo xam ni barke salaatul fatiha

conséquence lu bon la ñu def ni so soo leen tuddee am ñeneen ñu la naan dédét ñooñu jall nañu légui waxal ci ñu bees bi man boma ma man leen mais ñu bees ñu di door ñew ah waaw ñu ngi door a ah, de. donc problème bi ñu bees ñi di door ñew ñom dañu dañoo nekk di installer wu di jéem 6 mois nak ku ci installer wu wul dootoo installer wu. Mm-hmm. ah bu dee installation bi ñu doy. non 6 mois. Mm. d' installation de toog de décision de prise de décision de montage d'organigramme, etc. et cetera. 6 mm-hmm. mois ça ëpp na ci. américains ils ont 4 ans bo amé 4 ans ben mandat la ben 4 ans ñaari mandat la mu 8 ans ah. ñun ñu am 5 5 wa mais c'est différent parce que américain yi ñom seen xel ah, ah, seen xel tegg nañ ko ba paré mais ça dire que au-delà de tout ñun nak suñu 5 ans dama leen 5 ans yoy ku ci 6 mois doyna ndax 6 mois président bi tukki na bari 6 mois décision yu bari nañ ko 6 mois yi lu bari xew fi te 6 mois yi lu bari lu positif am mm-hmm sauf que lu bari lu positif loolu ci 6 mois yi dafa melni in lutax lu parce que hmm. amna ko xamni ngi dans le mauvais sens hmm. li grave situation dans le mauvais sens il est dedans dedans c'est-à-dire mais dafa am ñeneen ñu ne biir ah bon

oui diw ñu moi oui mooy secrétaire général de service voilà wala il nangam ah oui d'accord alors comment ça se passe oui DG vraiment te souvent dañuy gentil nag moment ba muy metti dañ doon méchant mais de dañuy jamais. mais c'est normal waaw monsieur DG ah bienvenue vraiment yow moom yàgg nañ de suivre a nañ la dégg vraiment vraiment content de nous. de toute façon ñun xam nga amuñu woon nous sommes des fonctionnaires ñun nous woon def dara on ne peut que suivre. donc c'était difficile on était mm-hmm. là à résister mais mënuñ ci dara. Mm-hmm. fekk moom moom wax ngi résister.

su fekkee ni lu ñu war a signé la mu war a agsi nga signé ko léegi leen ñu signé loolu loo xam ne nga juum léeg leen ñu indil la dara parapheur parapheur autorité yi nañ moytu parapheur yi bala ñoo signé nañuy liir textes yi discours yi nañu koy liir liiraat. si dégg wax bi mm-hmm. Mm-hmm. parce que noon bi gën a dangereux mooy bi la sës rek takk ci yow nekk ak yow di yeewoo ak yow di jóg ak yow di dund ak yow. mais pourtant euh, moi j'ai remarqué l'eau, dans mm. mm. dafa attention parce qu'on a souffert sous Macky pendant 12 ans 12 ans ah. ans excuse-moi 12 ans mais ces 12 ans yo xamni lu lu fi xew du Macky Sall rek ko def du ay ministre rek les ko def mm. lu ci ëpp ay nit ñu ak ñun sécurité publique ñi di sécuriser nguur gu bees gi. ñoo doon dóore ñoo doon tiire ñenn ñi. mais jàppoon ne ñoom ay ordre la ñuy doxe. waaw léegi ki daan joxe ordre. waaw ñu sant la defal lu bon nga def ko. waaw waaw kooku bu la sësee rek di liggéey ak yow yow war ngaa ko. amaana boo ko santee mu def lu baax mu topp la ci tam. waaw mais bu fekkoon lu bon la gën a maîtriser. <laughs> parce que yàgg na ci. waaw ah, loolu la gën a maîtriser. Mm, mm. d'où l'importance du casting. kilifa yi foog ñu gis Sénégal bu ñu bëggee mu

yow lan ngay préconiser parce que yow tey mën nga ñëw nekk DG fenn mais nooy xàmmee amoo détecteur de ki baax ak ki bon. nooy xàmmee ku far fii ku far waaw. ni ni ngay xàmmee yomb na xàmmee yomb na. naka. laaj ñi sincère te nekk ci biir. mais déjà déjà yow bu fekkee yaa ngi wër ñi sincère. Mhm. di wër tamit ñi sincère. Mhm. kan ku sincère ngay laaj mu wax la kii moo sincère wala kee moo. waaw non non non parce que parce que ci jamono bi ngay nekk ci opposition bi. waaw. yow am ñoo ils étaient sincères ñoo la doon information peut-être ñoo doon jox yenn info peut-être ñoo la doon hmm. ci Ils bi parce que am nga am nga link yi am nga xam nga li ñuy wax ne ah. contribuer. contribution bi nag mooy waral ñu pointu on le dit en passant comme ça d'où l'objectif mais on le dit en passant que kilifa yi bayi len xel su ngeen bëggee réew mi parce que la yakal Macky Sall ci jamono hmm moo yàqaloon Abdoulaye Wade ci jamono hmm. c'est des fonctionnaires qui sont là dans l'administration di def lolo ak lolo dañu tam di attaquer politiciens acteurs politiques yi dañ ci am wàll reuy waaw mais ñi ne ci biir fonctionnement bi c'est-à-dire ñi doxal mbir mi ñi doxal administration sénégalaise ñi doxal école yi ñi doxal sécurité publique ñi doxal feneen ak feneen un rôle dafa prépondérant donc fait fekkee ni sincère ñu ci démarche positive bi acteur politique bi di impulsé yéex-yéex day am affaire bi mën nagam nga non pourquoi n'agam nangam dafa mel ni passe TV si on n'est pas bien organisé dañuy am jafe il mhm. mooy waral manquement yu bare mhm. tàmbale ci man man ma manqué waaw leneen manqué mhm. keneen manqué ñeneen manqué mu am conséquence ci production bi that the same moo DG yu bees yi il faut que ñu boole vigilance ak subtilité tay moytu frontal. c'est-à-dire. frontal moy waaw takk coupé. kapit namit di bay xel di observer di gestu di xol di laajte di enquête di dem ci archives yi entreprise bi bu la né par exemple ADPME. non donc nga dem ci archives ya ci histoire ADPME.

xool di saytu di xool ñi baax ñi bon kan lañ fi war a teg c'est difficile. c'est très difficile. Euh, quand est-ce qu'ils vont se concentrer sur l'essentiel quoi. c'est c'est c'est c'est c'est c'est très difficile euh, et et je pense que euh, yal na benn yal na yàlla taxawu nguur bu bees bi ak ñu àndal. ñëpp taxawu leen. kattanal leen. Mhm. dooleel leen man dama bokk ci ñi leen di soutenir je le dis affiché. aw ma ci sentiment nëbbuma ko pourquoi objectivement mënuñu and ak ñom xex ben jamono contre forfaiture. Mhm. après ñëwaat tay daal ne je suis contre non ñaanuma yàlla contre mooy ñaanuma yàlla ñoom ñu mai ba may jël position contre man ak sama morom. Mhm. dañu ñaan yàlla Sénégal jéggi fii dépassé fii nekk ci beneen saway beneen hauteur. aduna bi quand tu regardes le train qui traverse Nouadhibou jëm Nouakchott Mauritanie le train qui traverse. Mhm. si ngay gis ne Mauritanie bu 2004. Mm. Mm. na na ci parce que un état qui se veut aller de l'avant c'est par des réformes réformes yoy sommes ñun Sénégal lu ci bëri dañ dund politique te dundu ñuko ci administration lu ci bëri mm. mode de fonctionnement dunduñu ko ci sunu ay école dunduñu ko ci sunu sport dunduñu ko ci sunu culture manam ci ci secteur yu bari dunduñu réforme yooyu. motax toujours on est toujours dans la répète répétition après muy tar ci ñun ñun ñu am impression que ça ne bouge pas te nguur bu bees bi dafa teg pour réussir am ñeneen ñu teg pour mu échouer. c'est normal te ñi teg pour mu échouer. Mm. mooy ñi fi nekkoon nguur gi fi nekkoon. Mm. mais ñooñu dañoo am cellule ak tentacule ci ñi fi ne. ci ñi liggéey ci biir wax ak dégg nag mu leer nag saay wax ko ci digg bi mu leer ñu wax ko mu leer il faut que nguur gu bees gi ngeen bàyyi xel les fonctionnaire ci travaillent avec vous leer na am na si jàpp naa ne ñi ci ëpp ñi baax ñu ëpp waaye ñi mel ni ñun mel ni may bàyyi san dañoo ne ci biir foo ñu looloo yàgg sonal nguur yi fi jot a jaar yëpp parce que da ngay teg structuration organisation am kuy yéexal dossier yi am kuy traîner les pieds am te doo te boo taxawee wax mu non non non ça c'est pas c'est comme ça dina dàq nit ñëw ne la non c'est pas ça dina teg nit ñëw ne la si si il est excellent fekk nitam la te kooku il n'est pas excellent ce sont des choses qui arrivent ah ñaan yàlla jàppale la ñaan yàlla jàppale la ak tamit ak tamit le contrôle en permanence il faut que l'administration nous sentir le contrôle en permanence. Nous sentir que nous sommes surveillés, nous sommes regardés. Comme l'administration chinoise, comme l'administration américaine, comme l'administration des grandes contrées occidentales sont ici. C'est ça. On nous me regarde, on me filme, on me, on me contrôle mes va-et-vient, mes déplacements, ce que je fais. C'est pas de la psychose. C'est pour que les gens soient dans le firmement du travail.

je donne un exemple am na ay conteneurs yu fa nekk am na ñuy ñaxtu ñoo xam ne dañoo jëndoon ay caro conteneurs yi ñëw ñu war leen livrer mais ci situation dëkk bi ak nguur gi door a installé wu ñu am décision yuy jël yu bloqué conteneurs yooyu caro yi mën naa yàqu comme leneen mën na ci xew te yaa ngi fay day metti waaw kan moo war a wax état bi situation bi graaw na pour que état bi jël décision gaaw pour que ñu bañ a lor yeneen sénégalais ci bëgg a defar ba yor lor ay sénégalais yoo xam ni ñoom dañoo jàppoon ci xeex bi waral changement bi dégg wax bi maanaam ci wàllu même ci politique même ci politique yaa ngi jëm ci ay échéance électorale da nga bëgg référendum da nga bëgg changer sa assemblée da nga bëgg élection législative yi di ñëw nga am majorité da nga bëgg da nga bëgg da nga bëgg soutien bi continuer sur le plan politique su fekkee ni man dama jàppoon ci xeex bi ñëw nga bloqué sama ay conteneur mënumaa liggéey mënumaa jaay bloqué nga ma boo soxlaa boo xefee doo ma am ce sont des choses yo, xam ni dans l'administration dañ ko war a signifier état bi ne attention il y a des décisions que vous avez prises nangam ak nangam mu ngee xew kon nak kilifa yi bay len xel ci ñooñu léeg-léeg léeg-léeg ma nek agent administration bi nek ci biir mais moment bobu le fait que affaire bi di démé nonu mu yakal nguur gi daf may arranger parce que bokuma ak ñom gëm-gëm wala neexuñu mais je suis dedans parce que je gagne ma vie dedans wax ak dégg non xam tay ji ni suñu né par exemple nguur bu bees ñëw na le temps que muy installé wu mën na ñew né euh xaalis bi ñu waron fay euh, convention yeeg on arrête tout légui ci bir on arrête tout dina ci lor ba lor ñu ko dina ci lor ba lor ñu bëgg dina ci lor lor lor lor mm-hmm. est-ce que gënul ñi ñu war fay ñu fay leen tay vérifier lu ci dëng ben par ben liggéeyu administration bi la su amé ku ci dëng wala ci dëng le contrat bu jubul ñu teggi arrêté bobu te bañar lor ñëpp mais bo né arrêté nañ ñëpp te ñëpp ñooyu am ci ñoo xamni ci lañuy dund ci la économie di di bouger su économie bi taxawé 6 mois y a problème ci walu dañuy installer wu dañuy xol situation bi dañuy évaluer li gën moy au fur et à mesure y a des équipes une équipe qui est là pour ça c'est l'administration donc administration bo bo ñëwee tekku ci cadre bon on arrête tout man may xey di lijeenti ay kayit saa yu ma ñëwee ñu ma ah gars yi nañ nañ xaar il faut ñu xaar ñoo xaar dama xaar 12 ans sous Macky Sall mu metti lool ma yaakaar changement donc su ma ñëwee dafa war a bouger loolu dañ kaa wax nii comme parce que kilifa yi mënuñu yëg lépp ñi leen war a yëgal nag ñu ngi ci biir administration bi léeg leen ñu jot dajeeg ñu baax ñu yëgal leen wax leen li xew léeg-léeg ñu dajeeg ku mel ni man muy siisu bëgg affaire bi yàqu bëgg na Macky Sall ñëwaat deux mille vingt neuf mara day um si bàyyi leen ci xel de bàyyi leen ci xel de bàyyi nga ci xel yow bàyyi leen ci xel de seen kanam comme naan ndox.

billaay kooku jarul tey nañ bàyyi noonu rek sunu borom yaatu na ñaanal ko jàmm mu ne si jàmm ak njabootam yàlla yàlla delloo si xelam mu génn ci loolu waaw mu génn ci loolu parce que xam naa ni que ay ay njabootam am nañ lu leen metti ci situation bi du neex bind nañ lan oui oui oui c'est mais tu sais tu sais que tey nii je veux dire que ko 12 ans ak ci 12 ans ak Macky Sall ñeneen ak ñeneen kay li ñu xam nga la la justice pour les victimes la justice sur la reddition des comptes ñu ngi ci processus là, c'est très bien waaye dama en passant man bu doon man dong la man sauf que du man sunu bi parce que xamul tax non non du question baal sanction bi déggoo ma ne la sanction weesuwul bàyyi yaa wax nga ne non li ma wax c'est que aw ci kii mais boo gisee na que mais loolu doy na sanction ci mag donc boo ko bëggee tegaat foofu non loolu daf ñuy tardeel soxna si sama gis-gis la nag. Hmm. Euh, plein tout oui. ah mais euh, euh, non non non le cas de Touré c'est autre chose. cas Touré c'est révoltant. on est ça et puis tranquille il s'est rien passé vous sur il a raison 10 sur ça de faire de sorte que moi am poursuivre poursuites me na raison. c'est un pas déjà. non le fait que lui moi, mu jël décision bi c'est un juriste ramène ce qu'il fait mu jël décision bi dem dans ce sens moi je loue cela et pas que tu war a appelé c'est-à-dire que toutes les personnes victimes ça et là amènent droit au def lu déposer plainte pour que moi, am poursuivre parce que ce qui s'est passé ces dernières années 2021 à 2024 ray à gauche tour à gauche gaañ à ba pare nag ñëwaat nak melni du won ñom yor mbubb nak ba paré sol yu weex tal nak ñëw nak melni malaka malaaka taxaw suñu kanam nan DG oui monsieur le DG oui monsieur le PM oui monsieur le premier ministre oui monsieur le président non. xam nga sànq ma ngi doon euh Abdou Ndao. mais franchement dafa wax en tant que victime sama sama sérieux. dafa wax en tant que victime parce que mu ngi expliqué comme quoi que. Euh, arrestation arbitraire ah ñi nga xamni ne dañ leen di interviewer génn dëkk bi c'est pas normal. quoi wax loolu. xam nga man du ma du ma dinaa la wax nag benn cat. ba baal ma bala ngay sori dinaa la wax benn cat bu ma am. dama am problème. Mm. je sais pas si sont mes oreilles ou pas dama am problème pour déglu leen pour déglu déglee ma seen ni mm. mais pour dégg bi quoi mun j'arrive pas à à à écouter euh, tout ce qui est lié à à j'arrive pas ça passe pas. dama am problème dama xamul nag ndax ndax lii la wala mais dama am problème daal am naa problème xaw ma nag lan la tu comprends loolu ma jaaxal la moo tax euh, da nga may baal rek quoi waaw waaw waaw waaw du ma mënuma du jàll daal du jàll non dalul jàll maanaam day bu doon son son bi day flou wax ma la ñu wax oui. normal. Merci. Oui. Et que, en fait, il a parlé en tant que victime. Euh, ah. toutes ces choses-là. Hein? Te voir aussi le euh, régime B, wax immigration clandestine bi. looloo jar a wax euh, kii yow yaa Seyda. immigration clandestine c'est la faute de qui. j'essaie de de de comprendre parce que man bu ma ko déggee muy wax dama yaakaar ni moom dafa dafa peut-être ci diganté bi dafa dafa dañ ko defal lavage de cerveau dafa fateli xew démb. Euh, lenn de naa la yalla nañu yalla dolli sutura allahumma yalla nañu yalla defal jamm <laughs> yalla na yalla wàcce xéwal ci réew mi ak yiw bu yaatu ñëpp bien dal na ñëpp bien na ñëpp bien na na ñëpp am jamm na ñëpp seen xel dal na ñëpp gis nga damay waxtaan ak yow di partager en même temps na ñëpp na ñëpp seen xel yaatu dal mhm. ba ñu bañ am benn jafé jafé mhm. ak seen xol lenn nak amna Abdou mbaw il joue son rôle en tout cas il y a une chose boo xamné mën na ko ko sédel mhm c'est le plus courageux ci ah bon oui. qu'est-ce que tu appelles courage. ce que j'appelle courage moo ne si nous, ñu ci bëri am na ci ñoo xam ne dañoo lëlu sax il est toujours là en 2021 c'était le seul quand c'était dur sénégalais yi daanaka daw ba président bi ñu naan day daw ak day kii Abdou Mbow rek mo don ñëmé tok ci plateau yi di wax ça je le loue honnêtement. Mm. yalla rek a ma tiim. Mm. man kan ñu en passant période bobu ba bi toll ni ba bi président Macky Sall di dem. Abdou a subi des affres par exemple Biko, Biko garde corps bi di soulever bi président Macky Sall di dem ce sont des choses qui ont amana bu dalon ñenn ñi ñu lâcher prise hein. né écoute Macky Sall jaruluma yenn c'est fini. dem top dans ah. son coin. oui ah. amaana maintenant il prend les choses en main ok c'est c'est c'est courageux sauf que ti, lolu demul te mënu ta dem. donc euh, aujourd'hui s'il parle ainsi je me dis euh, am na lu mu faté quoi. Tai victimes, sénégalais là, victimes ni yi ni ci nguur gi ni sont les vraies victimes mm-hmm. on a un chef d'État mm-hmm. qui sort du cachot qui se retrouve au palais on a un premier ministre qui sort du cachot qui se retrouve premier ministre c'est-à-dire ils n'ont même pas eu le temps de top à à ay famille souffler tu vois ils n'ont pas eu le temps c'est enchaîné Il y a le ci sen dundou yalla na len gens ñu réussir victime donc monsieur Mbow il parle moi j'aurais préféré mu vraiment ñu ngi nous ñu ngi c'est le discours gis nga dina un dina mais pour soi-disant oui régler leen immigration régler leen non vous avez causé tort yow mëno ba nan yow nga da ngay noppi dang ka Mhm. aujourd'hui ce pays a besoin d'être requinqué requinqué ce besoin ce pays a été enquiquiné par un groupe d'individus maintenant il a besoin d'être requinqué mhm. il y a un régime tout neuf qui est en train de faire de sorte que ce pays puisse être requinqué il faut les accompagner il faut les soutenir il faut les booster en leur disant la vérité nit du man man man. non gis naa ne tu insistes beaucoup damaa gëmut par parloo dëgg rek te yàlla tax. Mm-hmm. dinañ jàpp julli ñaan suñu borom mu kattanal leen ñu réussir. Mm-hmm. en même temps fu ñu sentir faille sans prétention humblement nañ ko daan waxee président Macky Sall ak président Abdoulaye Wade ak ña ca des. Mm. président Abdou Diouf sax mos nañ ci tuuti ba jot cee wax moom mii nguur bu bees bi suñu gis.